ba jël di seetaan suma xaatir dafa rooti ba baaru Kajoor bay way ki jara way moo ñu tuul sa ay leer maa jabal bi jëlalam xamal ma ko kon ma way la te la yaa doon mu rabbaan juróom gëneel bi nga la boo ci al islaam soppe bee la ko jox moom a yoon ci xaddiim bu jaame o ñes yaa di jant ndolloor saxal nga fi ay leer te ci waar maa ngi la yalwaan yow doon nu tiijaan bay ma saa mébétum xol ma dee ci liimaan foofu la naa tungal ma tax ma jóg ci béykoor raf la naa xodduma kon ma bàyyi may gaar sax a gaaw xom mu fàtt bay buur say xewal gën a gaawan ba mel ni aw niir saxaat gay gën a wér yaa xalilu rahmaan baloo wax borom kunda dina fa yakkoon saxaar baa yi nga si wal na ba ko def li mu dem si docteur da ko def li solar li dafal ko bushra mu tàggoo glory dunia kazaka uxra dama sob di la way raw nga maas li tax ma di la woy nga niroog borom faas njabootam xalimaaram ndabooti Muusa sa way yi nga dekkal jiwoon na Isaa kuy murit na ma ñëw way la Seydi Barham waaju xam mën a ràññee te sopp Barham mu jaam maam xaatir maamu may ma sax moom te baawal maam xel maamu may ma fa moom kon danaa mën a way kii bi gën soodaan bi xutbu ruux yi naan ci diwaan déglu ba ma delloo ci fii ca adal buur jiitaloon duhut fii barahama ba nga rootee ba say bagar fees baawal nga jira doon xar ba seeni na fees xaalama ngalalam moom la jaay ci lislaam pour si ñaar ka mu wet jox ko xay mu fay doom su ngeen xamoon ay may saa yu nekk ngeen teew bañ a lingaar bañ a dingante ngeen saxoo waaw ba def kañaan dafa beddin du daan lu xar baax kon ñu gis bi nga waajee ñu xam ni yaa baax mot la jokkar baayam taraw ci lislaam benn sëriñ manu fay wax ne dem na daaraam boo kañaan amutoon loolu moo di bu fekkee nga loolu doy na xar baax yete ñetti at soora te raw na kuy maasam ne at ya muy daaw bam yere xarafu kaala samp daaraam di joor ay masalaam boole koog maqaamaam sirum ganel bi nga laam boo newul ci ay mool yaay xutbu yaay xawsu yaay seen diri jaal tuutoo gàttu leen du njool jami rasul bi la yor njool di rooba ji mool tubar yaay nelaw bi xol ba moom ngay xool te ruux ga arasaan kursi yu ca lay beel te buy ree day muñ xar kanam ba ni weer kaar ca waarem gën a neex lam ca xol yam wi waar balaan ko koy xeem lool booba aw naqar feeñ boo xoolee barahaama ñas gis ko muy muñ mooy jikkoom jamu doon fa seydi arnaan ndogal bu rëy kun fa yakun faalewul àddina ak li ci biir dafay nii la lu mooy yàlla ak nabi daana mot la am ku mu em ci alal ba ni soot am kom du ko xamul ko may baay kon tawul ay tonte du mooy nayta rabbu samawaati wal ardi day na ko jeexa damandoo ragal yàlla ci lislaam te toolam bari bay moo di jakkaam itam jamoo gën a xar gaynde moo yeguy bool karaama yaa gën a du sugal fayi doora ay badam dafa for mel ni jaani sama rahmatoom gën a xiir ji ba xiir ak miskin suquli nga suñu ruuxi suuxoon zulmaan ñoomin kabumba ten ba wer senangaan silima xa ku ko tey ba bem xol asambaaw war na jóg bay saagante topp say waaw rabul jalil ko fal jokkomante rabbana falkami fali doomam si war na labdana wal takun umatan moom la waa ku aw ci ndigalam xam ilaahi nafsut bañ yale si ñaajo si yaara madina banjala bajabamba muda fajawrana jamam jota soro kolya banjalo bayi nuhi magadu masapu jaita kongo mela yusuf alaja gira wanti aita magojono baso kongo da fayarlera alxaaji siñ daana wax ni mu eqaas boobu maa ngay leen nawle abadu maas naa xalil na toon naaru bañ ko joogoon daa baram faye soodaan daa xadir na te muusa fa maa u xayyaa la suñ bàyyere doomam bi ni mahyaa جلينا رسول إلهي موتى صلاة وتسليما بجان كفان جلينا بلا ويتاب قادجيا بخصم فدا وإمام العباد babal xat ma sa way bi tayem fi yow caam dalalem limitam do dojal balem saam xadaayit yi nga taalif ma ne su koy ajaayib yi nga sànk si wal الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبقنا وصرف الأقوال بلا